ñu ngi fii ci sunu juróomeelu fan comme ni ñu ko waxee ci hôpital Cheikhul mu Touba bi pour opération cataracte gratuite euh, ak ONG Direct Aid Society euh, équipe bi fi nekk équipe mixte la maanaam ay Sénégal ak égyptien ñoo fi nekk di def cataracte ci sunuy objectif bi ñu fiy ñëw dañoo bëggoon opérer junni nit ak ak ñaar téeméer wala euh, junni ak juróom fukki te ñu ngi fi tey ba démb ci guddi ñu ngi ci euh, junni yu manqué euh, euh, vingt sept donc tey foog nañ ne dinañ ko mën a mottali tey egg ci mille deux cent yi soxla wala mille deux cent cinquante. la cataracte c'est totalement gratuit maanaam dañ leen di opérer opération bi benn la mais suivi bi aussi ci la bokk duñ opérer suñuy mbokk ji leen bàyyi noonu. nañ fi ñëw le 26 27 28 en collaboration ak docteur Dieynaba bi mu dandal ñu suivre leen xoolaat leen fii benn weer ak fii ñaari weer pour mu leer ñu ne toppatoo nañ leen bu baax ba suivi bi ba wér bi am na ñu soxla leen ñu dem. ci kaw euh, population yi dañoo dañoo soxla yi euh, yi matuwaay yi chirurgie yu nga xamante ne fi mu ne nii ñu bari mënuñu cee jot te daanaka population yi jógee nañu fu nekk pour ñëw ça veut dire que euh, réellement population bi dañ koo soxla. te daanaka fi mu ne nii ñu ñu ñu ci bari sax dellu nañu xam naa ne dakaar la ñu jëm ak ak ñoom parce que dañoo da affaire yi daf ñoo mujje ëpp doole. kon nag population sénégalaise yëpp ko soxla rawatina bii bii bu Touba.